jàmm dellu si foofu ca Ngor. dem gis yi réew mi. def nañu jéego bu rafet. mais lu ñu fa jëlee est-ce que yeggee nañu ko askan ñoom ñu demoon manifester wuñu ñoom ñu demoon xëy na sax euh, ñooy kilifa yi certes. Mm-hmm. Euh, mais impliqué wuñu dëgg-dëgg na mu jaadoo tey waroon na jaadu ah njort naa dinañ def loolu ni daañu def euh, rencontre ak population bi doon def manifestation. ak ndaw yi doon def manifestation bu bañ a am benn euh, récupération politique ci mouvement wala association ñu waxtaan ak ndaw ñi ci façon bu dëggu ñu bàyyi wàlla xel ñi nga xam ne tey mais bu fekkee am na manifestation ñoom dañuy suuli seen doom ñu bàyyi wàlla xel ñi nga xam ni démb ay victimes lañu te dëkk foofu ngor te seen yoon nekkul ci manifestation xam nga njiit réew mi def na devoiram ci dafet mu dalal leen mais rencontre yu mel ni Sénégal souvent dañu dul laal góomba du ñu laal góomba du ñu faj góomba dañuy dañuy faj li ko wër nii rek parce que rencontre bi am na solo xëy na li tukkee ci rencontre bi ñu waxtaanee ko mun nañ ko bañ a étaler publiquement mais xeex bi xëccoo bi publiquement lañ ko def donc war nañu leeral ñi doon xeex ñi doon taal ni lii ak lii lañ fa dëppoo ci ay kàddu parce que parce que loolu mooy tax waxu kilifa souvent du sax parce que bu fekkee ñiy manifester leeralu ñu leen lu tax euh, wala lu ñu jëlee ca waxtaan ba ñoom dañuy continuer di manifester parce que ñoom ñi ñoo jiitoon manifestation yi way takk der yi aussi parce que tey ñi demoon palais lu mu néew néew néew bu ñu amee accord war na am condition bu ñu tegal nguur gi muy ñu wàññi effectif way takk der yi ci ñoom gis nga gendarme yi policiers yi ci ñun la ñu bokk mm-hmm. mais seen seen présence dafay lëndëmal carte ñu jeexal foofu rapidement Mansour. waaw seen présence dafay lëndëmal quartier donc ci waxtaan bi dañu xool lu ñu mën a wàññee effectif bi pour ñoom ñu waxtaan ak seen i yu tas information bi balaa balaa balaa balaa nga xam ba ba ba ñi doon manifester mën a dégg mën a comprendre lan la ñu jëlee pare a mm-hmm. Ousmane Sonko dina fas yéene nekk candidat dara du ko tey itam euh, nag mu bokk ci yooyu l'élection loolu ci boppam moom moo ko xamle.